سند الذي في كل نزال وفي سفر حماني على ما هم مع الحبس والصبر ak 3 tey jii agsi nañ fii ci gox bi di Darou Khoudoss Touba Taïf Nasru xam ngeen nag situation yi dund metti na lool lool lool lool te li ñu ko teg mooy tëli bi nga xam ne mooy waaw tëli Promoville bi ndox mi ñu mu ñëw fii fan yëpp nag coow am ci suñu Ousmane Gaynde Fatma nag xam ne waa koñ bi ne leen dalaleen seen xel parce que yéen wàcc ngeen tey ci suba nag la woo ki xam ne moo di kilifa gi euh, mu yebal mu ànd équipe bi lu ngeen def lu ngeen mën a jàpp ne leen bàyyi lépp seen mus ne lu ngeen jàpp bàyyi leen ko dem fexe askan wa lañ nekk ñu jóge ca ñoom nag ñëw na ñu ngi nii taxaw xool nañ liggéey bi nee nañ àllarba alxames dañ tàmm liggéey bi te incha allah lépp lu fi ndox dana fi jóge fas ñu itam mbedd yi des na ko defar ba lépp jaar ci yoon euh, loolu nag la ñuy xaar parce que dëkk bi ku ne xam ne ne coow li bëri na wax ji bëri na mais liggéey bi nga xam ne Ecotra ñu ngi koy ci Touba kenn ku nekk te nga si bët xanaa wax ak ñàkk wax am parce que wax dëgg yàlla li fi indi ci oto li mu daj ci suuf ñi nga xam ne ñooy waa dëkk bi buñ ko taxawoo ni ñu ko war a ni ñu ko war a dëkk bi dana jaar ci yoon ñoom na bu ñëwee da leen te ci ay loxo loxo yi tey nag ñoo leen jaarloo ci fi neen jaar leen jaar leen fii waaye ñoom li ñu fi indi ci matériel ak jumtukaay ak engagement yi jël wax dëgg yàlla mun ñoo wes lu sant leen gërëm leen ñun nag fii ñu nekk kenn mus ñu fekk fekk ñu fi kenn mus ñu fekk du kenn nag dañ ko bëgg mu leer kenn mus ñu fa fekk kon tey bu ñu jëlee engagement fekk ñu ci liggéey bi dañ koy sant gërëm ko di xaar rek nag fas yéene arba alxames incha allah lépp lu ñu ndax kër gis nii nii daa mabbu bi mu mabbee kër gi mu taqaloon mabbu kër googu mi mu taxawal miir ba màbbu muy ñetti kër yoo xam ne yëpp miir dañoo màbbu ba tax fépp am ndox kër yi ngeen jàkkal yëpp dañoo am ndox jafe-jafe boobu nag ñëpp di ko dund moo taxan tey jii kat sëñ Ousmane yëkkati kàddoom ndaw yi nga xam ne ñoom la fi président Abdoulaye Sylla yabal ñoom laay nuyu di ko siyaar bu baax ndax gis nañ seen taxawaay tey nun nag ku nu dimbali te yàlla rek tax nu jël ndax sonn na ñetti at ci ren at mu jot nu génn ci ci ci ndox mo xam ci day dugg ba ci suñu néeg gis nga fi way man sama kër mo fa duggon tay sama ndox ci sama biir lamay aksi kon nak non di ñaan dimbal di joy ci yeen di len sakku dimbal te yalla rek tax ngeen lu ci ndox mi ndax màggal Tuubaa gaa ngi ñëw te amuñu menn pexe di sante señ Mudu bu sa jang ndax mom motax ñi ñew fi di len siar bu baaxet nak di jéggul bu baax ndax xamna tit rek ak jaaxle motax wax ji munta munta munta munta soti yalla yalla yëkëti ko ca kaw mu doon président nu dund ba diko fekk pale

daw bind lettre bon amu réaction monsieur le maire euh, bon commission bi neen dem nañ fa amuñ benn réaction comprendre li lu mel nii dafa ñaaw dafa metti ci diggu Daaru dafa ñaaw ma déggee ñu ne ma président bon visite mais li a daal sama xel mu ne dañ koy ndox mi bu taw bi jàllee ndox des lim ci bëgg li tax mu di ko def yàlla na ko yàlla defal deuxièmement li tax li tax li nga li ma gën a bëgg a insister nag moom mooy bu loolu yëpp jàllee nañ ñu defaral benn tuyau boo xamante ni moins de un kilomètre la comprendre ñu montal ni benn tuyau boo xam bu ndox mi tawee comme lijjanti nañ ba tëli jàmbur yi ndox mi dootu taa suñu kër lay ñëw léegi nag nañ ñu dim nañ ñu dimbalee nag ni ñu lijjantee tëli yi ba mu évacué wu nañ ñu dimbalee ba kër yi mën a évacué wu loolu moins de kilomètre la mooy diggante moom ak canal bi loolu nañ ñu ko defaral te yàlla rek tax président Abdoulaye Sylla maa ñaanal li nga xamante ni moo tax euh, muy euh, mooy tax muy def jëf ji yàlla na ko yàlla defal. ñu ngi fii ci Daaru Xuddoos comme niñ ko faral defee saa su nekk ak at bu jot. Abdoulaye Sylla yebal leen muy euh, entreprise bu mag bi nga ne moo nekk fële ci diwaanu Ndakaaru muy Ecotra mu yebal ñu fii ngir ñu ñëw fii ci Touba lépp loo xam ne jëm na ci wàllum saytu dëkk bi ci seetal dëkk bi ak toppatoo dëkk bi ñu soxaw ci ci ni mu gën a ware ba tax na ci lañ ñëw nag xëy mel ni gis nga leen ñu lépp loo xam ne am mbale la wala lépp lépp lo xamne ndox la ñu fas ko fe jële ngir ñi nga xamne dañuy jugee fu nek ñëw ngir magal si bu ñewé mën nek ci état bu baax motax rek gis ngeen li suñu ginaaw di ndox mu bari lool waye xam nañ ne Ecotra buñ fi duggé inshallah lépp dina fi jógee ndax lool rek motax ñu bayé ko fële ci diwanum dakaru ngir dëkk bi saytu dëkk bi ci lépp lo xamne ne si ni manam moy taarixu dëkk bi ni ko sëriñ bi bëggé kon dal ñi nga xamne ne Moussa Abdoulaye sala ñu koy ñaanal ci barkeb sayyiduna mohammed limu bëgg xam na yàlla na ko suñu borom defal ndax mom sëriñ bi rek ko ñor ak Sénégal kon yakarna ne buñu yabalé ñu ñëpp ñu ñu départ fi nga matériel bi machines yi chargeurs yi bili yi grader lépp loo xam ne ay moyen la Moussa Abdoulaye Sylla indi na ko fii ci diwaanu Touba ngir ñu euh, euh, bëgg lépp loo xam ne nekk na si dëkk bi muy mbalit wala muy ndoxu taataa fu mu mën a nekk Ecotra dina jël ay responsabilité ci dëkk bi fépp ñu dindi li nga xam ne moo fi nekk ci am ndox ndax nag loolu la sëriñ bi bëgg te ñu nekk ci dëkk bi loolu lañ bëgg ndax moom dama ko waxee Moussa Sylla sëriñ bi rek moo ko ñor lu sëriñ bi woote ah, du ca dellu ginnaaw mukk ndax 2017 ba léegi la ko commencé ba 2023. Euh, ñu ngi sant bu baax Assane Sylla di rakk ci Abdoulaye Sylla macha allah moom itam du ko yàlla baaxal lépp lu Abdoulaye nekk soo ba ngoon jot ah, mu ci ginnaawam di ko dooleel kon moom itam ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax gis nañ taxawaayam bu mag ci liggéey bi te xam naa ne lii ngeen gis bëri na jaaxal na leen nag waaye dama leen wax ne leen jàppale ne seen njaaxle jeex na ak Ecotra ñëw na ak Moussa Abdoulaye Sylla ak équipe bu doy sëkk incha allahu taala 24 heures sur 24 dinañ nekk ci dëkk bi di ko liggéey muy guddi muy bëccëg incha allahu taala ba ngeen nekk ci condition yu baax euh, lépp lu fi nekk ci ndox rek dinañ ko jindi bu soobee suñu borom